waar bi de ndax bu dul woon guddi kenn du mën a wax bëccëg ak euh, Shuaybu xam nga Shuaybu ci histoire yonent yi dafa am histoire uh-huh. Shuaybu yonent yàlla Shuaybu la ñu tuddee xatibul anbiya mooy le porte-parole des des prophètes ah, ku éloquent woon ku mënoon wax mm. suwaay bu muy itam. macha allah waaw moom moom ah, kon wuy na tur wi jabu itam maa ngi koy euh, nuyu. Euh, maam jaara xaw ma maam jaara bi lobbu gaas maam jaara la wala warga maam jaara wala ci diggante bi. ñoo ko ci yokk yëpp. voilà voilà jabu kon ñu ngi koy. Euh, mais oustaz li nga sañse mbaaxee boo ko sa blanc de leeg sa yaa ngi as rek. rafetlu nekk ci sa déedéet man sa yére laa wax dafa rafet bi yéen a nice na. Ah, bi ci ci gàmmu gi la jógee moo tax ñu jógee ci gàmmu moo ñu bàyyi ko fi waaye mu ànd ak leer gi waaye bële itam. oustaz bàyyil bële. oustaz ñun ah, moo defoon ci kër gi. acca <laughs> waxal. <laughs> nga tëgg kële. ayca mi ngi noonu nag mooy ganu Omar bun Xataab Gueye dama daan faral a wax ni xëy si rek eh, xalaat si Lamine Niass quatrième étage dal na xel waaye moom it xëy si fekk ko biir wal fajri gën na dalati xel Omar sa ganangoom. Oustaz eh, Assane ginnaaw ba la félicité yow ak groupe wal fajri yëpp. ci gàmm gi ak couverture bi. ak programmation bi ak ni ngeen ci taxawee. tey jii bu doon ni dañuy def euh, bilan ginnaaw ba ngeen jugee si ëttu gàmm yi yëpp. ban bilan ngeen ñuy defal est-ce que yomboon na couverture bi parce que buñ ko comparé ak euh, màggal màggal mën na wax ni benn béréb ngay dem di uti fii nag faw nga ngarale mhm. est-ce que yomboon na. Euh, yombul woon waaye bu nekk ni mu nekk liggéeyu groupe. moo tax mu mhm. mu yomb. Mhm. ndax xam nga ne bu ñuy wax réussite ci ni ñu couvrir. Euh, gàmmu gi ak place yi ni mu bare comme ni nga ko waxee mhm. loolu d'abord euh, il faut nga dellu ci li ko waral maanaam nga seet nga seet ñi nga xam ne ñoo ko doon tracé di ko tëral mhm. di teg moyens yi foofu ngay tàmbalee mhm. muy administration bi nga xam ne yombal nañ ñu euh, moyens yi nga xam ne ci la ñuy àggee ci béréb yooyu avant parce que luy waaj a xew il faut nga préparer ko avant pendant bi nga ànd ak moom après bi nga ànd ak moom boo ci raté rek dafay impact dafay feeñ négativement ci li ngay def mm-hmm. loolu itam ci logique boobu comme ni mu ni ñu ko defee woon ci euh, màggal bi loolu lañ ko defee ci gàmmu gi waaye nag gàmmu ak màggal comme ni nga ko waxee dafa bokkul mm-hmm. mën nga wax ne màggal benn béréb la mm-hmm. euh, benn équipe mooy dem couvrir ko ci foofu ci li ci ëpp waaye boo ne gàmmu wax nga Sénégal gépp wax nga Sénégal mais am na ay béréb yoo xam ne itam ñoom ñoo gën a fes mhm. ci xew-xew boobu di gàmmu muy Tiwaawan ak Kaolack loolu itam bi wal Walfadjri di tëral programme am euh, dafa bàyyiwaale xel loolu mhm. moo tax mu indi ay équipe yoo xam ne mobiliser d'abord ñi nga xam ne ñu ngi ci région yi mhm. boo demee waa région bu Louga Omar Kayre wàcc na terrain bi naka noonu waa Thiès wàcc nañ ci terrain bi naka noonu itam waa Touba ñoom di Makhtar Sarr ku ci nekk rek ñëw nga joindre ci équipe bi nga xam ne Walfadjri yóbbu na ko moo xam ci Tiwaawan wala ca Kaolack waaye dañu xam encore ne gàmmu yemoon rek ci Tiwaawan ak Kaolack mais dafa am ay béréb yu bare yoo xam ne dañu fay def ay gàmmu yu baree bare mhm. moo taxoon ñu anticiper mhm. def ay reportage yoo xam ne def nañ ko ci béréb yu wuute ci euh, Louga ak li ko wër ci cees ak li ko wër ci kawlax ak li ko wër naka noonu itam bi ñu demee ci euh, équipe bi bi ñu wàccee ci terrain bi mhm. ci jamonoy gàmmu gi sóoraale nañu kër yooyu bu dee ci wàllu Thiès fépp fu ñu fa tàntal yonent bi ci jur boobu équipe bi bàyyi na ko xel def ci reportage. Euh, ndaxte am na ay kër yu yaatu yoo xam ne ñu nga foofu ci réseau de Thiès bi euh, ci fudul Tiwaawoon yooyu yëpp bàyyi woon nañ ko xel. ci élément yi nga xam ne euh, ñu ngi ko doon am naka doon itam boo demee Kaolack. noonu lañu def ndax Kaolack am na Medina Baye am na Léona waaye am na yeneen i kër am na pentum seen Basir am na njobootu kaneen yi. am na yeneen béréb ci Daaru Salaam ay busra yooyu yëpp yooyu yëpp nag bàyyi woon nañu leen xel ci programmation bi pour nit ñi te mën a àgg foofu jël lañu fa mën a jël ci suñu kemtalaayu kàttan xam nga matériel bi bu ñu amoon téeméeri caméra ak ñaari téeméeri caméraman du tax ñu feesal ñu ronu mboolem tante yi ñu tantal yonente bi ndax Sénégal benn cas particulier xam xam na xëy na sax mën na mën na àgg ci foofu mais ci côté coordination bi mm. nan la doon demee parce que boo xoolee sur le matériel logistique ak financier wax xam ne c'est pas évident day du yomb mais na ngeen doon defee coordination bi ba loolu lépp mën a yemb tey jii ngeen mën ne. lii def nañ ko macha allah coordination mën nga mën wax ne triangle la woon. Mm. parce que toujours maa ngi doon euh, Moustapha moo àndoon ak gars yi dem dem euh, Kaolack man ak ñoom Seydina ñoo nekkoon euh, fii ci Tivaouane mm. léegi li ñuy produire ci ci Tivaouane. il faut ñu coordonner ak waa Kaolack pour ñu xam durée bi naka la war a doon ak kañ la war a jàll ñoom itam la même chose bu ñu produire dara wala ñu programmer dala benn plateau il faut ñu xam ñun nan la ñu tëralee fii plus ñu xam waa Dakar encore li ñu fi am ci ay éléments yu yu yu war a jàll ak yu mel noonu mais coordination bi toujours mu ngi doon euh, rôle bu ma woowulee Moustapha dina ma woo euh, waa dakaar itam ñu nekk ci technique bi ñuy wootante kenn ku ci nekk di wax li nga am ak kañ lay jàll bu dee édition yi moom ku nekk xamoon na kañ kañ ngay jàll édition bi amoon na édition gàmmu spécial gàmmu kawlax spécial gàmmu euh, Tivaouane bu ñu waxee Kaolack nag région bi yëpp la bu ñu waxee Tivaouane itam région de Thiès bi yëpp la mm-hmm. noonu la plus éléments yi nga xam ne am nañ ko ci euh, ci ci ci Dakar loolu coordination bi moom mm-hmm. côté boobu amul woon euh, problème ndax kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk euh, xam nga euh, euh, da ngay da ngay bàyyiwaale xel sa moroom ci li ngay def. jërëjëf oustaz kii am na solo d' abord balaa ñuy wax dara ñu félicité leen. Mhm. comme ni nga xam ni noonu lañ ko defee woon ci màggal gi. Mhm. nga xam ni Moustapha toogoon na fii tamit ñu waxtaanee li nga xam ni mooy ñu ngeen ko couvrir mu nekk loo xam ni lu am solo la parce que dafa am lu am solo loo xam ni man da ngeen ciy tenir compte mu mel ni duma ko faral di gis ci yeneen tele yi. waaw parce que nag sànniwuma xeer xeer. mais kër yi nga xamante ni bii ñooy yenn kër yi nga xamante ni bii maanaam bu ñu waxee Kaolack li nga expliqué Kaolack mi mm-hmm. nga xam ne noonu la toll ak mais am na ay kër yoo xamante ni dañuy gis ngeen dem ci ñoom tamit euh, tàll leen seen micro ngir ñu xam exact maanaam daal di ngeen jox nit ki gëddam xam loolu man daal man loolu moom ma jaaxal quoi par rapport boo seetee les autres dafa mel ni daal ñoom dafa am rek fu ñu ciblé mais yéen ñeneen ñi dafa mel ni xeebul leen kenn li nga xamante ni bi moom la am loolu man laa remarqué oui li mu wax ni am na am na mm. solo mm-hmm. ndax ci diine kër gu ndaw amul waaw voilà xam nga lislaam mu ngi commencé ci benn nit mm-hmm. am doole loolu nag mm-hmm. ñaari nit topp ci muy muy dem ba am quarante nit muy dem muy dem ba toll fu mu toll léegi euh, deux milliards la ñuy wax de musulman kon ci lislaam kër gu ndaw kër gu mag amul loolu logique boobu yi tam lañ doon demee ci wàllu woowu mm-hmm. parce que kër yooyu ñi ñu bëri di yaakaar ne kër yu ndaw la ba dañ ci def focaliser ñu ci bëri ci ci ci ci média bi mm-hmm. boo demoon ba fekkee seen programme mm-hmm. xam ni ñu tëralee ak la mag ña bind ci xam-xam di nga xam ne kër gu kër gu ndaw du kër gu ndaw xanaa dañ ko ndawal wala ñu jéem ko ndawal ñàkk xam rek ñàkk xam kon loolu Euh, la ñu bàyyiwaale xel. Mm-hmm. parce que kër gu ñu dem rek ci kër diine yi ñuy dem yëpp. Mm-hmm. kër gu ñu nekk rek dañuy jàpp ne bii mooy en miniature beneen beneen bu beneen bu mu mënti doon. Mm-hmm. loolu logique boobu la ñu la ñu li ñuy produire. moo tax ñu ramasser ñëpp rek ñëpp ku ci nekk gis ci sa euh, sa bopp. ku ci nekk itam mën a apporter Sénégalais loo xam ne. dinañu mën a wax ni ah yow de. Euh, xam-xam bi ballee fii de mm-hmm. bu ko sénégalais yi utiliser dinañ ci dinañu mën a soppi doxaliin wala ñu avancé jëm ci kanam. Mm-hmm. te loolu mën na génne ci kër gu kër gu mu mënti doon. parce que yéen li ngeen def nii euh, état waroon na ko def parce que li tax état waroon ko def boo seetee da ngay gis ay kër yoo xam ni da ngeen fay dem yéen ñu gis ni état loxo état yegg si wu fa kon état. topp leen comme ni nga xam parce que man pour man état waroon na topp yéen logique bi nga xam ne moom ngeen def noonu exactement pour mën a satisfaire yenn kër yi mais da ngay gis ni da dem ci kër yoo xam ni ñi ngi préparé gàmm gi mu wóor na dinañ fi def lu bari ak moo boor ñi nga xam ne ñooy taalibe yi la ñu xam ne mais état dërëmam du fa dugg. Mmh. exactement loolu loolu itam euh, dëgg la. Mmh. waaw da ciy jàll waaw exactement parce que parce que loolu la maanaam euh, euh, yéen wul maanaa. Mmh. yéen wul maanaa kumba am ndey ak kumba amul ndey. fi mu gën yenn yéenoo maanaa mooy ci ci ci kër diine yi. te koo fi gis muy organiser benn xew. Mhm. jàppal ne benn monde boo xam ne moo nekk ci ginnaawam. Mhm. te ñoom xëy na dafa loolu dafay génn ci seen xel bu fekkente ne événement yu mel nii la mais ñooñu duñu génn seen xel bu fekkente ne dañuy dagaan baatu askan wi. Mhm. dinañu xam ne ah kii kat bu ma ko defalee lii dina am ñu bari am na ñu bari ñu nekk ci ginnaawam. Mm. kon ni ñuy bàyyee xel ci wàllu bu bu bu dagaan baat ñëwee noonu la ñu war a bàyyee kër këraan yooyu nga xam ne xëy na dañu jàpp ne yu ndaw la pour ñu mën leen euh, defal la ca war. loolu nag xëy na sa wax ji tey dina war a tax ba. yeneen yi di ñëw te am na yeneen yu sax parce que ñu ngi ñu ngi dëkkmal gàmmuwaat. waaw war nañu waaw war nañu def ay moyens yoo xam ne te béréb yu bari dañuy gàmmuwaat. Mm-hmm. du Medina bàyyi rek mooy gàmmuwaat gàmm Ndiassane daf ciy gàmmu. Mm-hmm. Medina bàyyi di ci gàmmuwaat lu mel ne Malicounda di ci gàmmu. Mm-hmm. yeneen kër yu baree baree bari sax ci la ñuy gàmm muy ngénte lañ koy tuddee. ñooñu ñëpp itam war nañu leen servir. ba ñu mën a def seen programme boobu ni mu waree te loolu. Mhm. warugar bi ci ñooñu euh, ci ci état bi man de li euh, mooy xalifa bi. Mhm. dañoo gis mu accueillir groupe bi. xalifa ban xalifa euh, Tiwaawan suñu Mbay Si Mansuur. Mhm. yàlla na fi yàgg loolu te wér ak discours am bu am solo bi nga xam ne àddina yëpp ñu koy rafet rafetlu. dañu gis mu accueillir leen waxtaan ak yéen waxtaan wu ama am solo. ñu bëgg xam ndax dafa amoon nag waa kër gi colère gu jiitu avant. ndax dafa rafetlu liggéey bi lu waral bi ngeen demee mu def discours xol ba ku seetlu sax dangay xam ni kuy bàyyi xel kër gi la ndax tudd na la ba tudd oustaz ci ni ngeen di defee ay waxtaan lu waral jotaay boobu ak lan moo ko boole waa kër gi dëgg la loolu itam euh, ci euh, doxalinu cheikh bi mu ñëwee mhm. dafa yëg ne malgré que xale la waaye dafa yëg ni mhm. mu ngi jël benn ndono boo xam ne benn yenn boo xam ne yenn bu diis la mhm. papaam amewoon na relation yu dëgër a dëgër ak kër diine yëpp pas seulement papaam mais maamam ay maamaatam maam Khalifa Niass waaye maamaatam sax di El Hadj Abdoulaye Niass. Euh, diggante yooyu bu ñu la doon wax relation bi amoon ci seen diggante ci weccoon ci ay ay weccoonte ay ay ay ay may ak yu mel noonu. Mhm. ay livre ak yu mel noonu bu ñu la ci doon wax màggalu Porokhane fii la ñuy fekk te li ñuy wax du jeex. Mhm. waaye euh, loolu bi mu ñëwee dafa ne loolu dafa war a continuer continuer te la war doon waaye ne warul nekk rupture. Mhm. ñu xalaat ne kon war na jokkoo ak kilifa yooyu. bu fekkente ne dañ ko doon dégg te xamuñu ko ñu xam ne mu ngi nii mu wax leen ne nag benn bu pap waaye juróom doon def dina ci yokk zéro ci droite bi muy fukk noonu la tàmbale di doxal xëy na boobu moo génn génn gum rek ci euh, euh, contact yi nga xam ne def na ko waaye moo dem na ba Madinatu Tuuba def fa lu ni mel am na yeneen laaj yu nekk ci suñu kanam yoo xam ne ñu fa dem togg ak kilifa yooyu pour wax leen ne euh, seen doom a ngi nii seen doom nag seen doom la lu ngeen am ci programme na ngeen leen ko wax waaye lu ngeen gis ci moom ci war lu ñu war a jubanti na ngeen ko ko wax loolu tàmbali la waaye dina am dina dina am fu mu dem loolu ci cadre boobu la jotaay boobu amee sëñ Mbaye Sy Mansour moo xam ne itam il faut ñu sant ko ci plateau bii ndax mhm. euh, la mu fa wax keroog waxuma ne mën na jariñ Cheikh ba mu réussir ci mission bi muy taxawal ci wàllu papaam mm-hmm. waaye sénégalais ci seen bopp sax bu ñu déglu woon wax jooju ñu appliqué ko ci seen doxaliinu kër ak mbedd mm-hmm. bu booba ñoom dinañu dinañu réussir ci ci li ñuy def mm-hmm. ñu sant ko baax moom Serigne Mbaye Sy Mansour ci euh, dalal bi muy dalal waaye itam kàddu bu dénkaane waaw Serigne Babacar Sy Mansour waaw Serigne ngi euh, parce que oustaz l'autre jour. waaw naa ànd ak oustaz. waaw pour gis sëñ bi. voilà Sadio Moussa ci la ci la waroon bokk. yàlla dafa yàlla dafa dogal mu yàlla dafa dogal. waaw euh, waaw ma paam ci yoon. exactement moo tax nga tardé. moo tax moo tax ma tardé. waaye itam ba ñu demee. waaw moom euh, daanaka ña fa teew. waaw ña fa teew ñëpp vraiment teewal nañu fa ñëpp teewaloon nañu ñëpp. waaw dëgg la administration bi. waaw ndeysaan euh, suñu Mbàkke Fall nga fa woon. Mm, mm, mm. bu dee ci wàllu rédaction bi Moustapha nga fa woon. waaw bu dee ci wàllu famille bi. Salma Cheikh yooyu yëpp ñu nga fa woon waaye la ci ëpp solo ci loolu lépp sax mooy waxtaan wa fa jib mhm. nga xam ne daal euh, moom euh, relation ak Sidi diggante la boo xam ne comme ni ñu ko waxee amul woon diggante mhm. waaye moom wane na ci wax ji ne pare na pour euh, continuer loolu te dina ci taxaw dina ànd ak Cheikh Cheikh tam wax na ko ne lépp loo xam ne daal ay proposition wala yu ni mel yow jógee ci yow. bu ñu ko yëgee rek dinañ ci taxaw taxawaay. Ah, incha allah damay wax ni rek bu Sidi Lamine euh, génnaatoon tey de wal fajri wala njiit mi Cheikh ba ci ñëpp kenn du defaraat sa toogaay. Oh. ndax defe naa ni. fa mu mm. tëdd xolam sedd na. Mm. donc euh, mi ngi noonu euh, oustaz. Mm-hmm. gis ñu ni ngeen couvriré mm-hmm. màggal gi gis na nañu mm-hmm. couvriré gàmmu gi. muy loo xamante ni ba dem si yàlla si doon na ci teg doon na ci xar tànk tubayam pour mu ñu defee ko pour këru diine yëpp gis seen bopp ci Walfadjri te defe naa ni ba tey ci seen jiital ak ñoom Moustapha wàccagun ko léegi ñu jëm ci ci ci ci ci yeneen ay événement ak yooyu mhm. ndax euh, moyens yooyu ngeen déployé yoon moom ngeen fas yéene defaat ci yi nga fi lim léegi ci gàmmuwaat yi mhm. ndax fas yéene ngeen euh, couvrir yenn ci ay kër loolu naturellement loolu rek noonu rek lay mën a mën a mën a dem moom suñuy wëllëre la <laughs> wëllëre borom kër gi la dëgg la dëgg la kooku moom dëgg la <laughs> dëgg la pas seulement Malicounda pas seulement Ndiassane mais incha allah mhm. ni ñu defe woon gàmmu gi ba yaatal mhm. dinañu defaat noonu ñu semt suñu kemtalaayu kàttan ci gàmmuwaat gi mhm. fépp fu ñu fa tàntal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañu tracé ay stratégie yoo xam ne ci suñu correspondant yi ci rajo bi ci télé bi même ci yeneen organes yi. pour ñu couvrir ko ni mu gën a matee ni mu gën a ni mu gën a yaatoo. Mhm. fenn fu ci nekk rek ak euh, moyen ba ñu fay ba ñu fa yóbbante waaye incha allah. Mhm. mën nga wax ne accès na sax parce que li ko dalee nii rek incha allah nit ñi dinañ commencé xam ne. Mhm. Euh, ñu ngi soogu ci liggéey bi techniquement techniquement parce que man euh, dama gis. bon yenn télé yëpp dañuy ñëw rek baas fenn. daa no non non non c'est que tamit aussi tamit il faut que ñu ah, ah, wax tamit ah, pour ñu nit ñi xamul xam quoi tamit quand même. Mm-hmm. non ku maandu laa. Mm-hmm. mais li may wax nii mooy sax mm-hmm. maandu te. déglu ma télé dañuy ñëw rek baas fenn. teg seen seen studio. invité diw ñu ñëw toog di conférence mais yéen bu ngeen ñëwee wax déglu ma rek yéen bu ngeen ñëwee dinañ leen gis xibaar maanaam l'information bi am ci gox boobu ak fi mu toll noonu ci wàllu kii bi ngeen di ci def ay édition comme bi nga xam ne ngeen koy defee Dakar te loolu gisuma ko nag wax dëgg fa yàlla quand même nan nañ wax dëgg c'est que loolu ngeen di def noonu xalaat boobu macha allah nga xam ni ñeneen télé amuñu ko te yàlla buñ ko am loolu lu ngeen koy tëralee noonu quoi. xam nga ngeen di def bu dee bu dee wàllu moyen yi la ah, ci li mu wax. mën nañu wax ne Sidi Lamine Niass sax moo indi moyen boobu. Mhm. xam nga léeg-léeg nga dem gis benn télé boo xam ne muy gaari ay fukki oto wala <laughs> nangam ñu bind ak yu mel noonu mais boo ñëwee da ngay naan ana wal fajri te fekk mu ngi dend ak yow ndax mu ci biir poos daanaka wala wala ñu boot ko voilà nga xam ne ñu ngi ko boot te fekk mu ngi tukkil adduna dama lay fàttali benn kàddu Seydou Lamine Niass mm-hmm. bu doon wax naan rëy Sénégal dañuy jaawle rëy ak neewi mm-hmm. maanaam rëy mm-hmm. ak neewi ah. waaw mhm. oui exactement <laughs> waaye nag terewul. rafet mhm. rafetlu travail bi nga xam ne presse bi en général. Euh, def nañu ko parce que boo demee par exemple ci cérémonie officielle bi. boo demee ci cérémonie officielle bi. Mhm. nga gis nombre caméra ya fa nekkoon ak euh, borom site yeeg. nga xam ne ko ci nekk di seet nu may euh, àggalee li ci askan wi. da wax ne kon côté boobu moom Sénégal mu ngi ci def lu lu lu am solo. mais comme ni mu ko waxee Walfadjri nag toujours dafay bëgg ànd ak. jamono ji mhm. lu mi rek mu bàyyi bu ko defee la nga xam mu nekk ci xëy na loolu mhm. moo leen jàppale ci lu bari ba nga xam ne euh, mën nga di def reportage ngay dem ngay déplacé wu mhm. jógee ci kër sëriñ bi dem ci bële di dem nit ñi di la seetaan ak yu mel noonu xëy na ñu bari ci euh, ñeneen ñi xëy na loolu. Euh, amaguñu ko waaye itam mu ngi ci marché bi ku ku fëgg marché bi rek. xëy na mos ko am non ña ko doon defar kañ. yàlla na yàlla na yàlla na jeex. <laughs> Ah, ah, yàlla na jeex <laughs> bàyyi bàyyi ñëpp am ko rek. yàlla na jeex xam nga bu amee ba pare dafay am yeneen yuy amaat. dëgg yàlla day amaat yeneen yuy amaat. mais mais mais taxawaay boobu noonu. est-ce que jotul nag léegi ñu teg benn débat. Mhm. mooy service public ngeen di def pourtant privé la commercial la. Mhm. est-ce que jotul maanaam séddale bi ñuy séddale di jëm ci wàllu taxawaay bi ñuy taxawaayu média yi. Mhm. ñu bàyyi xel ñenn ñoo xam ne tey jii li public bi waroon def ñoom dañ koy def ci seen place. subvention bi. waaw subvention oui. ba ci publicité sax marché. parce que boo xoolee tey jii liggéey bi ngeen ñi def. de je n'ai contre la RTS. Mm-hmm. mais service public ngeen di def plus ko moom. Mm-hmm. oui. ah tey da euh, moom de ah, dëgg moom de lii non non. attention boobu ah. mi ngi mi ngi ñëw de booy bi. ñëwal eh, yegale ko rek mi ngi ñëw waaw li wóor mooy li war a li war a dundal presse. waaw. Ah. Mm-hmm. ak li ko mën a dundal mooy gagnant gagnant. dëgg la kër diine yooyu wala ëtt yooyu du ñu mës a dem ci ñoom ni leen jàppaleen ci lii jàppaleen ci lii. ci wàllu matériel mais. am na option boo xam ne ñoom ñoo am possibilité wu ñu déclenché ko bu ñu ko déclenché woon dinañ jàppale mooy lan mooy euh, ay sponsorisation mm-hmm. xam nga borom usines yu mag ñëpp yi fi nekk ci fii ñoom ay taalibe lañ mm-hmm. ñooñu bu ñu ñëwoon tey di wër fu am visibilité mm-hmm. bu ñu ñëwee ci wal Walfadjri dinañ ko gis visibilité bu ñu ñëwee itam accessibilité dinañ ko ci fekk possibilité dinañ ko ci fekk ba tee tee tee yëpp jeex ak ay loolu xëy na voilà loolu xëy na am na ci waaw am na ci benn rôle bu ndaw boo xam ne peut-être kilifa yooyu ñoo ko war a mën a def te bu boobaa ci ci la yëf yi di gën a niin mm-hmm. bu boobaa dinañ dem ba parce que bëgg nañu ay at rek ñu dem ba di naaw ak ay hélicoptère incha allah bëgg nañu sax benn benn mbir moo xam ne dañ ko xalaat nii mm-hmm. mais ci suuf laa koy wax parce que bëgguma ñenn ñi dégg ko dinaa ko wax mais ci suuf laa koy wax mooy lan <laughs> mooy bëgg nañu ba ñu am benn chaîne boo xam ne bu màggalu Touba amee mm. comme ni muy amee ca màkk mm. da ngay vingt 24 heures sur 24 Touba en direct ah, d'accord mm. koy xool en direct 24 heures sur 24 du taxaw mm-hmm. du taxaw bu màgg bu gàmmu Tiwaawoon jotee duplex fii fële fële fële en direct 24 heures sur 24. Mhm. voilà boobu kii la boo xam ne ci suuf laa ko wax. pour saa ah, ko <laughs> ko la boo xam ne. non li nga wax nii que gis nga Oustaz. Ah. booy Bouba Ndour. Ah. mi ngi ne xul bi enregistré non enregistré émission non non enregistré parce que li ngay def nii yëpp ñu su na ko. def. na ko nga ne. naan mag am na loo xam ne mënu ko wax ci kaw mais koo xal mu jël. mooy taalibe yi yor ay millions ak i milliards. tey seetaan wàllu fajare rek naan toj nañ fi toj nañ fi. dinañ ñëw di sponsoriser. di jàpp ci gàmmu yeeg màggal yi di def millions yeeg milliards yi wal faj exactement mu gën a euh, neex système u gagnant gagnant boobu moom la ñuy xaar ci ci ci nit ñi ah, mais xaaruñ ci ay dajale ay ay kon euh, loolu nga wax noonu mm. ci cadre boobu rek lañ ko war a mën a jàppee am na beneen boo xam ne itam peut-être mën na bokk ci li ñu li ñu lay tontoo ci wax jooju mm. muy euh, chaque année ñu ngi dégg loo xam ne dañuy daan aide à la presse. waaw oui subvention. aide à la boo ko doon boo ko doon firi ci wolof xëy na da ngay naan am ñamu bët. ndimbal la wala ñu sarax la wala nangam. te mm-hmm. fekk du du loolu. Mm-hmm. du loolu dafa am service dafa am benn partie ci média yoo xam ne service public la. 100 mm. pour cent. Mm-hmm. waaw léegi nag pour ñu équilibrer loolu ci la ñuy jéem a coppati tuuti ci fenn. pour équilibrer mais exactement mais mm-hmm. na mu waroon mel ak na mu mel bokkul euh, na mu nañ ko waroon defee non séddale ba nañ bokkul dañuy jël séddale bi ne yi daf maa compte kii dafa te ki lay wax ne daf ma compte ay sénégalais nga war a wàcc waroon a wàccook ñoom dara mm-hmm. defoo ko mm-hmm. sénégalais yooyu ñu tàllal leen micro ñooñu wax ne am nañ problème mu ndox nga ne ah kii nii la ma contré et pourtant da nga digoon sénégalais yooyu ne di daal dafa ndox loolu mooy la contre amu ci. yow kii da lay dimbali sax. exactement yow kay ki lay nëbb problème bi. moo la RTS moo la jox dara. moo la dimbali wut te sax beneen façon. Mhm. beneen façon boo xam ne ñoom mënoon nañu ko def. mu nekk aide à la presse boobu wala ñu mhm. wutal ko beneen tur sax. Mhm. mooy bu fekkonte ne par exemple da ngay naan bépp journaliste buy voyager. Mhm. gouvernement bi jël na ci 15 pour cent yoo xam ne moo ko yenu euh, papier yi nga xam ne presse écrite bi ñu ngi koy utiliser. 10 mhm. pour cent yi ñu ñoo koy yenu mhm. euh, yu mel noonu. waaw waaw euh, taxi yi nga xam ne. taxi yi nga xam ne tele yi ñu ngi leen koy teg. wàññi nañ ko ñu def ci wàññi wàññi nañ ci cinquante pour cent ci taxi yooyu. bu boobaa aide à la presse carrément ne dafay. dafay dafay dafay. wala day bu fekkente ne ay kii la du coppati ñee kii ëppale na kële kële kële te ci man benn problème dafa am da ngay gis ni yoo xam ne tey ji du question wal fajir la lii mais day am taux d'audience maanaam audience am day baax hmm. mais da ngay gis ni du lii nga dem feneen gis émission boo xam da lay ñetti nit rek ñoo koy seetaan ñu jël fukki publicité dugal ko fa maanaam loolu waaw euh, ah. yëf yi moom cause yi bari na ah. mais xëy na cause yi ñu ci mën a wax hmm. mooy euh, coutume la maanaam yenn saa yi coutume ci la nit di amee publicité ci marché bi ni muy doxee léegi daal. Mhm. ay aada maanaam sa client ren. Mhm. mooy sa client déwén bu fekkente ne amuloo client ren déwén doo am ak yu mel noonu. Mhm. loolu xëy na coutume boobu. ak yooyu am ñoo xam ne encore dañuy autosaisir. ne ah fële kat comme que nangam kat bu ma fi yóbbu publicité mbaa ñu wax ni nangam ak nangam nangam man dama nangam. nga autosaisir balaa ni lu ko nit yow ci sawal bopp yaay ragal. sax dem yóbbu foofu loolu itam. ci ci li ci bokk la ci jaay daal fa muy fa muy jaree la mu ah. génne àddina yal na ko yàlla yërëm euh, vidéo bi ma def ci moom lii Sa Ndiogou wax laa wax parce que am na koo xam ne jàpp na ni Walf noonu gouvernement la su ma fi indee sama yëf gouvernement day foog ni damay jàppale noonam te pourtant ki lay wax li manqué kooku moo lay dimbali mais koo xam ne toujours da lay wax ni lépp baax na ëllëg boo daanoo kookoo lay lor mhm. te nag Walf wax dëgg yàlla lépp loo xam ne jàpp na ne askan wi soxla nañ ko pour gouvernement mën a ne def seetu ci Walf di xool li mu war a def. voilà lii bu sooy bi Macky Sall waree ñëw foofu. Hmm. am na benn télé boo xam ne dafa tojoon. boo fa tax yu ngi kii mais rakiste nañ ko tappale. yaa ngi dégg hmm. mooy télé bi nekk ci wetu jumaa ji boo tourné rek kii bi pax yu ngand yooyu. Hmm. fexe nañ ba defuñu ko sax defar bu baax mais fexe nañ ba fatt pax mi. pour Macky bu mu gis pax mi. xam nga ñi lay nëbbu loolu mooy wane ni kon rakk ja ma koy nëbbu lu bari lu xew géejaway mm-hmm. lu ne ku lay nëbbu lu mel noonu mm-hmm. yenn yi nga xamante ne moo tax Abdou Diouf bi mu fi jógee naan xamutoon ni mbuusu meew am na kii mbuusu café xamutoon ni dañ koy jaay juróom xam nga yu mel noonu mooy mm-hmm. wane nga ni yow sa kii yaa ngi koy nëbbal lépp fu muy jàll ñu bale ko defar ko peinture garab yi loolu mais loolu ba kañ mais euh, bu ñu naxamte foofu daal ci point boobu li ci li ci nit mën a wax daal l'objectif mooy Euh, na na maandu am daal na maandu te am. Ah, demande ñu euh, demande wu ñu euh, kenn demande wul service. Mhm. parce que loolu beneen mbir la ñaar mais dafa am ay règles yoo xam ne. Mhm. ci wàllu séddale ay ay ay ay publicité yu mel noonu yëpp. Mhm. yoon wi tëral na ko tëral ni mu maandu. bu ko defee ñu ko war a séddale séddale mu maandu. nañ ko defee noonu. bu ko defee nag ca ca topp lu mu mënti doon baax na mais. au moins nañu respecté règles yi nga xam ne moo nekk ci taxi ñu dellu si waat ci euh, gàmmu gi en général tey jii booy tiire bilan hmm. lan la positif négatif am na yu manqué. voilà euh, bu ma doon euh, tiré bilan damay naan c'est positif. positif mais damay wax ni encore amaat nañu yeneen ambition yi nekk ci suñu kanam yoo xam ne dañu jàpp ne àgg nañ ci njabootam hmm. la. Hmm. loolu mooy lan mooy ne tey ñu mën a dem ba. di def Casamance en direct. def Saint-Louis en direct. def Kédougou en direct def Dakar en direct mm. est ouest nord sud ak ci digg bi <laughs> bu ci nekk rek ñu mën cee cof ne nangam ak nangam loolu nag comme ni Sidi daan wax loolu te ajo ñu am ay hélicoptère yu naaw waaw yooyu yëpp dañ koy <laughs> xam nga booy dem booy mébét waruloo tënk sa bopp ci ñàkk moyen mm-hmm. <laughs> uh-huh. voilà am hélicoptère yu naaw da nga naawee fii dem fële naawee fee dem fële waaye mën nañu wax ne mën nañu wax ne commencé nañu ko parce que ñun bi ñu gàmmoo Tiwaawoon ba pare avec collaboration wu euh, Sénégal Tour bi nga xam ne ni ko dinañu ko sant mooy liaison yi jàpp nañ ci màggal gi jàpp nañ ci Sénégal ngi leen di sant bu baax Sénégal Tour benn rôle liaison bu ànd professionnalisme encore mhm. parce que toujours euh, ci oto bi rek mhm. Mhm. mais ni ngay coordonné ñoom di leen woo administration bi ñu lay orienté ci euh, ki war a exécuter loolu gis nañ ci travail professionnalisme boo xam ne yombalal nañu liggéey bi mhm. parce que euh, maa ngi woon Tiwaawoon mën naa la wax ne mhm. gàmmoo naa Tiwaawoon gàmmoo gàmmoo Léona Niassène gàmmoo dina bàyyi ndeysaan te euh, grâce à ñoom. Ah, yooyu yëpp dem na. ci ñu leen di remercier c'est que professionnalisme boobu nga xam ni moom mooy wax ci Sénégal du. Mm. moom mooy différence wu. bu euh, tudd keneen kii mooy. bu tudd keneen c'est que mooy ñoom baaxaan. différence ñoom baaxaan da nga leen di ñu naan la maa ngi ñëw fekk ña nga Touba. Ah, ah, naan la ñu ngi fii Pikine di ñëw ñu ngi ñëw embouteillage ñu téye fekk ñu ngay jëli ji benn luyaas. waaw bu war a jóge Touba waaw loolu mooy loolu mooy différence bi dama njàngan nag léegi directeur programme bi wax na ba pare léegi ñu jël observateur bi ah, ci wàllu diine ci lu bari tey ji gàmm yi def nañ ko fu ne message yi gën na mais mbiri valeur da cee bari hmm. bu njëkk dan daan lii ci euh, cérémonie officielle yi dem ba am ñu noon gërëm rek lay doon gërëm rek kon mu bañ am sax moo gën hmm. mais tey ji egg nañ ci léegi di joxe message ba dugg ci valeur yi di tere li yàq askan wi ñu ne leen bu leen ci eggati wala bokk bu dee am na fi yam nan nga gisee message yu mu jàllale ci gàmm gi en général. waaw message yi day message yu leer la. waaw waaye yàlla na dugg ci nopp yoo xam ne bu ci duggee mu àgg ci xol yi. loxo yi jëfe ko. waaye boo jëlee bi tuwaawoon bi par exemple. jikko yi ak ni ñu yàqoo. comportement yi ak ni ñu yàqoo ak exemple yéen cee jëf. borom ñaari tur yu mel noonu yooyu yëpp. foo tourné ci senegal am na fa. Mhm. te Sénégalu démb mel woon noonu. Mhm. sëñ Mbaye Sy Mansour euh, sëñ Aboubacar Sy Mansour euh, junjee na ko. Mhm. ci waxam. yooyu li ci kilifa diine mën a wax def mooy wax ko. yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu société yàqoo te nga bokk ci membre société ba. na nga def effort. mu ne premier effort bi ngay mën a bi ngay def mooy. comme lakk la demal nga fay ak sa loxo. bu fekkente ne amuloo possibilité boobu na nga wax bokk eh fii ngi lekk ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen wax nga yem ci wax parce que amuloo possibilité nga jëf mm-hmm. bu fekkente ne nag amuloo possibilité wax jooju ndax am lu am na lu ko waral nga nga bañ loolu rek te seet tey seet nan ngay def ba mën koo fee jële kilifa diine itam ab sëñ Abdoul Aziz Dabax daana ko wax mm-hmm. moom wax la ñu am am maa doole ji nag ak pouvoir beeg yu mel noonu nee na Abdou moo ko yore. Abdou Diouf boobu moo nekkaat Abdoulaye Wade moo nekkaat. Euh, ki fi nekk di Macky Sall. Mm. voilà te askan toujours dama yaakaar ne. pour nga servir leen da ngay leen di fekk ci seen pas-pas. Mm. nga servir leen fa day jarul dégg. naa ci mbirum takk suuf loolu moom état mënu ci dara. ay ah? mbirum euh, takk suuf ak yooyu yooyu état mënu xanaa mm. déggoo xanaa déggoo. Omar ibn Khattab li mu daan wax. Omar ibn Khattab dafa daan responsabilité bi ma yenu mm. li ma ci diis mooy bu bu benn bu benn nag faqastaloo. Mm-hmm. ca saam. Mm. yàlla dina mën a ee. Eh, jogal yow yaa ngi war bëgg am bakkaar de. Mm-hmm. nga ne nax lan mu ne am na benn nag bu faqastalu fële. Mm-hmm. est-ce que amul ay moyens yoo xam ne ay façon doxalin ay stratégie yoo xam ne boo ko defoon. mu éviter euh, mu éviter loolu wala déet. bu dee bu dee loolu la prouver ko. waaw bu ñu tegoon ne ku nekk ku takk suuf. waaye moo tëj la ak kañ takk suuf. voilà ñoom ñaar ñëpp. mais est-ce que léegi tey takkante suuf bi dakk ñuy takkante ci kaw takk suuf kanuy takk suuf. xam nga sax est-ce ko yëg gëw ma ko de. xam jigéen. waaw ndax dina ko yëg. bañ ko jiite nga naan lan. xam takk suuf bi. ñu naan takk ma ci suuf. waaye yow waaye dimbali ma nga naan. saa ragalal yàlla takk ma ci xam nga yooyu mu wax yëpp sax yooyu mu wax yëpp xam na Mm. yooyu sëñ bi wax la yoo xamante ni des fois aussi ci nit ki lay dépendre exactement exactement pour tontu la ci sa question boobu sax mm-hmm. sëriñ bi xam nga bu euh, li tax ba mu mu mu mu cité yooyu parce que ne nañu fa ko fi jëlee bu ñu ko fi doon jële mm-hmm. ay ay façon jëlin la am na long mm-hmm. terme ak court terme ak loo xam ne gouvernement la aju ak ñoo xam ne ci nit ñi la nit ñi d'abord il faut nga xamal leen am na ñoo xam ne dañu xamul moo tax ñuy def li ñuy def kon sëy dañ koy siiwal nga par exemple par exemple est-ce que yenu na ci at yi l'islam am ci Sénégal yëpp sant mille am na ko ci lu ëpp loolu ci Sénégal mm. ñuy jël ay références mm. boo rombee ci suñu université nga gis ñu bind diw ak diw forsa diw ak diw diw bind benn phrase ñu am suñu baa baax te sëñ ngi fi wax mm. yoo xam ne bu ñu ko defoon rek àdduna dafay soppeeku nekk àjjana am na ay termes pédagogiques yoo xam ne El Hadj Malick tëral na ko ci yar xale ak yu mel noonu psychologique sociologique yoo xam ne mhm. bu ñu ko euh, boole woon ci li ñu am tey ñu am lu bari waaye yooyu yëpp ñu bàyyi ko fa di di mhm. loo xam ne amuñu ko ñu kaste loo xam ne am nañ ko léegi nag mhm. bu ñu doon euh, bëgg dem ci fi nga xam ne sëriñ bi wax na ko ñu bàyyi li li ñu nekkee long terme la ak court terme bokk na ci long terme bi ñu laaj suñu bopp ban sénégalais la ñu bëgg a tabax d'abord. su dee de. gaa yi boo leen wa gaa yi di takk foofu nii gaa yi gaa yi. yamalee yor yar ne ku fi takkati suuf ñu duma la tëj la ci kaso bi. wóor na yàlla léegi gaa yi arrêté. yooyu yëpp takk euh, suuf yi non yow jigéen ñi ñooy ñëw ne takk ma ci suuf dimbali nit ñi ci takk suuf yi waaw day dimbali nit ñi ci ñu bu ñuy takkee ci jàkka yi nañu tasee ci jàkka yi mais naka ngay gisee ñu takkee ci jàkka yi dem tasee tribunal exactement nee nañu tribunal day day foqati jabaram force tas ko. Mm-hmm. Mm-hmm. te takk suuf boobu encore. Mm-hmm. mais takk jàkka yi ñoom reconnaître wuñ ko ci kayit yi de. il faut nga dem fële pour kii ko. Ah, moom nga yóbbu fa ah, pour ñu mën koo dëggal. moo tax it fañ koy dëggalee fa lañ ko war a tasee nag yow it. mënuñu koo tasee nag ci jàkka ji. parce que jàkka ji dëggalaguñu ko. foofu nag lañ ko war a mën a tasee sax. vraiment ci jàkka ji lañ ko war a tasee sax. li may wax nii eh, oustaz mooy invité noppil. ko doon tasee ci jàkka yu bëri du tas. parce que am na defar. avant ah, mu koy tas doo ñëw rek daal di tas. Ah, ah. fa ñu ko defaree woon daal bu yàqoo fa la ko war a réparé. te fa ñu fa ñu ko defaree woon. Mm-hmm. am na ay aay yu fa jiboon yoo xam ne fa imsaakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsaan ak yu mel bu la ko sooy bu firi loolu nga xam ne lii ñaari ah, contrat la boo xam ne <laughs> contrat la boo saay <laughs> moo ko yëngal ah. oh, oh. <laughs> dama ragal mu ñëw rek na comme que parlons français amul te parlons arabe léegi dina léegi euh, loolu la maanaam euh, li mu wax noonu pour ñu changer comportement yooyu. Mm-hmm. kenn ku ci nekk da nga am da nga ci am part responsabilité bokk na ci état bi. Mm-hmm. bokk na ci nit ñi ci seen kër parce que borom kër encore dafa am nooy war a yoree sa kër. Mm-hmm. yenn jikko yi jafe na léegi nag ndax yëf yi jikko yi virtuel la léegi. jikko yi dafay ñëw ci kër yi virtuellement. kon yombatul waaye nag. obligation lay doon ci borom kër yi ñu orienté seen njaboot. ñu mën a am éducation de base boo xam ne tegu ci suñu aada bu baax ak suñu diine. dégg woon ca vermicelle ya. ca kaamil ya laa yaakaar ne lay wax dama yaakaar ne bu ma ko laaj day naan mu nga woon ci kaamil yi. Oustaz noppi rek. Oustaz di bàyyi ko après naa ko laaj ba xam bi. <laughs> gisoo xanaa bibliothèque bi mu nekk gisoo téere ya na mu ko wëree. Ah, voilà voilà loolu. ñu ngi koy nuyu bu baax voilà moom itam def na liggéey bu am importance. ci ci gàmmu gi ndax euh, suñu programme bi xam nga avant la woon pendant ak après mm-hmm. avant bi nag. Mm-hmm. moom joué na ci rôle bu rëy ndax euh, am na lu ñu tuddoon yóbbalu gàmmu. waaw def na ay waxtaan yoo xam ne askan wi gis nañ ci seen bopp. ah moom sama gàmmu la foog ma koy sàññi xeer. voilà léegi kon euh, li may tëjee comme ni ma ko waxee mooy sant euh, émission bi. sant euh, ni ngeen koy doxalee. ndax université populaire la boo xam ne comme ni ma koy waxee. ni ñaa ngi ci wéttali ko. Mhm. ndax sëñ bay xam nga wax ne lu yaakaar naa Pape Malick moo ko wax. waaw Pape Malick Thiam mu ne waaw mu ne. bu njëkk ba daan gis nit ñi di xaaxataay. di reetaan ci mbedd bi. Mhm. waaye koo gis mu waxtu. ko gis am na problème boo xam ne moo <laughs> <laughs> moo tax émission yu mel nii nga xam ne sa takkusaan di nga ñëw toog nga kii nga seen gars yi di naan ataaya doon ti la naanoo ci seen na ay banaana sax yu fi nekk yooyu dafa baax ci ci ci période bi ñu bi ñu toll dem naa ba ma wax gars yi ne même sax dañu waroon créé benn ministère boo xam ne. Mhm. pour lutte contre stress. ci dëkk bi. ministère boobu waaw xam na boobaa Sadio moo ko jiite. voilà waaye boo dama koy jiite daal di jël ku caa def ko directeur cabinet chaque jour dañuy ko wax ne kaay fii kaay fii émission bi ànd euh, ci cadre boobu ñu ngi leen ciy félicité di leen ci sant. amiin euh, ak ni mu amee complémentarité mm. léeg ata ataaya ñëw. waaw léeg-léeg mu fekk fi ay gerte. foofu gis na ay gerte xaw ma dama ko fi bàyyi. oustaz dama ko fi bàyyi. loolu yooyu yu ci am solo la. <laughs> suñu sponsors yi tam yi fi nekk. Mm-hmm. sant nañ leen mais ñu ngi. ñu bëri dañuy ragal jàpp ne eh, foofu kay wal fa kenn mënu fa ñoom ñun ay allemand mais nañu contacté rek nañu contacté bu ñu ah, leen waxee ba pare ci ñu door jël position boobu jarul ragal daal di ñu ay gaynde yoo xam ne dañuy ñëw léegi beneen bi mooy euh, dinaa remercier équipe yi nga xam ne wàccoon nañ ci terrain yi na bu tiwaawoon bi parce que gars yi da ngay gis ci ñoom disponibilité boo xam ne bien sûr da nga da ngay gis efficacité boo xam da ngay naan da sax am na Dakar bu ñu nekkee engagement quoi voilà dañu kii production bi dafay gaaw sawar envoyé lu gaaw mm-hmm. euh, Moustapha encore ak équipe bi mu nekkoon fële ca kaw la la même chose ñu waaw production production envoyé lépp daanaka écran bi dafa fees fees fees ba. Mm-hmm. ñu ñëwee ñoom ñëpp équipe yooyu yëpp euh, sant nañ leen gërëm leen. ñoom ñëpp nga coiffé leen. wax leen ne nag loolu loolu loolu loolu bataille bi la mais guerre bi mu ngi ci suñu kanam. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu bataille bi la mais guerre bi newul suñu kanam parce que ñu ngi dëgmal gàmmuwaat buñ ca paree. fin d'année yaa ngi fi mhm. buñ ca paree wal fajiri daal du toog am na sax beneen boo xam ne peut-être mënoon naa leen ko déy waaye comme que déy naa leen benn ma bàyyi foofu boobu boobu bu ñëwee rek incha allah ñëpp dinañu xam incha allah jërëjëf Oustaz Assane Diouf directeur des programmes bu Walfadjri ñu koy lu baax di am mbégte di la félicité waat rek di la ñaanal tamit yàlla fa la cat. parce que nit bu dee nii heure bu nga ko tuddee rek ñëpp ne dafa baax. mais Oustaz ñambaasal ci programme bi nga xam ne mi ngi war a ñëw ci kanam. tamit Oustaz dinañ ko dalalaat. dinañ ko dalalaat waaw non non def leen. yow yaay animé émission bi wala maa koy animé. Oustaz bul wax déglu Oustaz ma bàyyi ma bàyyi ah oustaz loolu war nga war nga am na foo xam ne tuuti ma wax ko mais tuuti ma wax ko mais comme que ñu ci ëpp nee nañu bu ma wax nañu oustaz ñamal ñu tuuti rek après boo ma invité waatee rek ma ñamal il faut que ñamal ñu oustaz bi programme bi door nga ñëwaat voilà ni lay demee waaw oustaz am na loo am na loo xamante ni bi yaa ngi koy waaj ci programme bi mënoon nga ci ñamal gars yi tuuti. waaw nañ ko bàyyi noonu ba ngeen invité waat ma. après ñu door rek yëpp loolu. ñu waat toppi fi ah, expliqué lépp kenn nee na Ouza. Ah, mais mais ah, dañ ma ko dee sànq. Mm-hmm. nee nañu mën nga toppandoo Sénégal yëpp. ba mu des oustaz. Hmm. oustaz daal moo la të. xam naa nag loolu moom yàllaa ko ko may. waaw munoo ko toppandoo musoo ko toppandoo. mënoo ko mën na fonk dinaa ko étudier. doo ko étudier kat ndax mënoo ko. je vais l'étudier. <laughs> oustaz dafa am lu ñuy waaj. Ah, ah. junjuñu rek junjuñu. dina doy ah. xel. am na lu ñuy waaj mais comme que ki ma dalal nee na naa bàyyi ba mu invité waat. ki la dalal boppam li la ñuy waxati ci gi. <laughs> bëri xam-xam te yaru ak raar ci biir Sénégal ñu ngi koy jaajëfal eh dina dellu si mais ça yow yaay animé kii bi wala man la wax dëgg yàlla waxul hmm. ah, invité ki ma invité daal kooku nee na nangam. ma la de. <laughs> Oustaz daal gudd fan. ak wér yàlla musal ak benn musiba yal na la yàlla defal jàmm ak hmm. li may wax rek tey jii bu uh, ndem si yàlla si ñas ñëwaatoon du ñu defar leen seen toogaay ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk leeram xare ko aljana moo ñu booyee moo booleeg oustaz Assane waaye du ñu teqaleeg moom waa administration également dale ko ci Cheikh ñuy ñaan uh, ñaanaat uh, yéen bi gën a oyof ci kawam ndax xale la waaye am na jom moo ñi mu àndal ñi bàyyam daan àndal ñoom rek la àndal donc mu ngi noonu yàlla yàlla woyofal yéen wi oustaz Assane yow yàlla yàlla a a defar bi ndaxte nag ñan ñoo ko wax samay nawlee ko wax loolu moom lu raar la te say nawle oustaz ñooy toog fii di wax sa am xam-xam ak sa simplicité ak sa yarute mooy loolu donc yàlla na yàlla guddal fan wi te wéral la bu baax a baax say nawle comédien dañoo xamoo dara ayca mi ngi doon ñu jàll daal jàll nag ci beneen rubrique muy nag victime du net ñu dalal ci soye bu dem régi ñëwaat ayca mi ngi noonu victime di dañ ciy daal di dalal Souaïbou Souaïbou. waaw maa ngi lay fay madame Diouf baa yaa ngi ci jàmm man na xam nga lu ma jaaxal tey ci sa mbir mi. Hmm. ki sañ a arnaqué boxeur. daa boxeur ki kuwam rek. te am na ku toog fii ci plateau bi de am na fu mu jaar ak boxeur. ah ah, ah, ah timis. daal <laughs> di koo tooñ. timis xool ba xam ndax.